suuf bi amul Dakar suuf bi fu mu nekk mooy ci collectivité donc su nekkee dañoo bëgg a liggéey ci wàllu yooyu ma cité foog ñu dem si collectivité yi ba pare dem ci collectivité yi dafa am beneen sens bu mu am sens bu mu am mooy jël service yi nga xamante ne ñuy nekk Dakar nekk ay citadins am nañ ko sunu mbokk Sénégal yi nga xamante ne au même titre que ñun ay Sénégalais lañ dañu war a jël service public bi jege si leen ko loolu dafa bokk aussi si mission CDC moo tax sànq maa ngi koy wax ci français dañuy wax répartition spatiale égalitaire des investissements c'est pas parce que da nga nekk midna Yoro Fula que CDC suy financé tey waroo xam ne CDMP day financé pour nga war pour nga war si équité territoriale dafa nekk lu am am na sax lu ñuy wax politique de la ville Lol, bëriwul ñu koy siré si mission CDC mais politique de la ville t'as taxoon na ma jóg bind lettre kii di euh, maire de de la ville de Dakar Baptiste Diaz il a pas répondu mais la moi t'as ma bind ko lettre parce que politique de la ville suñ ko waxee dafa am yu bëri yu ci aaju équité inéquité yi nekk ci diggante gox goxaat yi sax da koy régler day régler wàllu euh, sécurité day régler wàllu connectivité des règles régler wàllu aussi habitat même hébergement yi nga xamante ne waroon nañ ko mën trouver ambulants yi loolu moo taxoon ñu saisir ko parce que loolu ça fait partie de la politique de la ville té loolu en tant que ay responsable en tant que ñu xam ne dañuy soutenir la politique publique dañ ko wara taxawal. non amul benn problème lettre boobu dañ ko topp ci moom mais dañ ko topp tamit yeneen villes yi nga xamante ne moo nekk si région de Dakar hormis même Dakar lépp loo xamante ne caisse de dépôt war na ko def dina ko def mission caisse de dépôt lu ñuy nëbb bu nekkee dañoo transparent bu nekkee dañoo jub bu nekkee dañoo sérieux amuñu dara lu ñuy nëbb biir caisse de dépôt